mbokk internet yi ñu ngi na na ngeen ko bëgg rek lañ ko defee ak na ginnaaw bi nga xamante ne ne moom moo di réewum Sénégal mbokki internet yi ginnaaw nag ba nga xamee ne moom mi nga xamante ne Adji Raby Sarr yëg na ne kii ji Bassirou Diomaye Faye jëg na jël na li nga xamante ne bi moom moo di réew mi dafa daal di takk ay bagage am ngir dem fële ca bitim réew waaye nag mbokki internet yi lu ci gën a yéeme mooy patriote yi ñu ko noonu ndax ña ngay dem fële ca Genève di ko recherche di xool loom la nekk ñoom nag nee nañ même ko ki nga xamante ni moom moo di Ousmane Sonko baale ñoom ñi ñoo di euh, patriotes yi duñu ko baal ndax dañu koy daal di teg ci yoon ñëw euh, foog mu ñëw ñu daal di euh, wax ñu daal koy atte ndax dafa sosal ki nga xamante ni bi moom moo di Ousmane Sonko mbokk internet yi encore une fois Adji Sarr maa nga Genève maa nga Sénégal lu ci mënti am rek duñ dinañ leen indil ay leeral yu leer lañ ndax ku ne xam na ne ñi ngi gis ci réseaux sociaux yi mu tak ay bagage am fas yéene jëm fi nga xamante moom moo di ñoom ñoo di waa Genève bàyyiwuñu ko benn yoon mbokk internet yi saa su nekk ni ngeen rek lañ koy defee ak yéen jërë ngeen jëf. Setsima TV, l'actualité en temps réel dans la spontanéité et la rigueur. Setsima TV, xibaar yu